Seydi Harazim gannaaw bu mu defee introduction bu ñàkk morom boobule ci wane li waral mu taalif téere bi te wax ne loolu bokk na ci li ëpp ci li ñu war a sonne li gën a am solo ci li ñu war a sonne mooy xam ñooñ yàlla ñi te ki ci ëpp daraja ëpp ci dayo gën ci gën cee jara xam gannaaw yonentu yi ak saxaaba yi muy Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu moo tax mu indil ñu téere bi ci juróom benni bunt waaye bunt bu nekk am ay fusul bunt bu njëkk bi fi taarifi bihi ci xamle Cheikh Tidiane bi mawlidihi ak fan la juddoo kañ la waa ba woyi ñaari way juróom wa nasabi ak askanam wa ashiratihi laqrabina ilayhi famiyam yi ko jege wa nachatihi ak sosom wa bidayatihi ak njëlbeenam wa mujahadatihi ak góorgóorloom ak farloom ci yàlla wa axri tariqi rushdihi ak jàpp yoonu njubam wa hidayatihi ak gindeekom wa fii thalathatu fusul nee na bunt bu njëkk bi dana am ñetti fasl buntu ñaareel bi fi mawaajidihi wa axwaalihi wa maqaamihi almuttasifi bihi wa kamaalihi ci ay mawaajidam ak i xaalam ak maqaamam mi melloo ak mëtam wa siiratihi sunniya ak siiraam bu niroog siira yonent bi lool wa jumalin min axlaaqi saniya ak lëf ci jikkoom yu kawe yi leer wa xusni muamalaatihi ak rafetu jëflanteeg Cheikh Tidiane radiallahu anhu maa ixwaani ànd ak i mbokkam wa ahli mawadati ak ñooñ soppam wa fii nekk na ci salaatu fusul ñetti fasl ñetteelu bunt bi mu def ko fi karam ci tabeek Cheikh Tidiane tedd ngaam wa saxaahi ak tabeem wa azimi futuwatihi wa wafaihi ni cheikh baaxeeg ni matalee kóllëre wa xawfihi ak ragalam yàlla wa uluwi himmatihi ak kawe hitteem wa waracihi ak càmmam wa zuhdihi ak dëddu àddunaam wa mawizatihi ak waareem wa xuriyatihi wa xurriyatihi ak ngoreem ci yàlla ak ci yoonam wa dalalati ala allahi ak mën a tegtalem fay naka la ñoo jéggee ci yàlla wa jamihi alayhi ak ni muy dajalee jaambeeg boromam wa sawqihi al aqwaam ak mang gi ñi bi xaalihi ci xaalam wa maqaali ak ci waxam lihi jëm ci yàlla wa fii nekk na ci buntu ñetteel bi talaatu fusuulin ñetti fasl albaabu raabiu ñeenteelu buntu bi fi tartiibi awraadihi mu def ko ci toftale ay wirdaam wa adkaarihi ak zikram nan la jotee ci tariqa beeg nan lañ ko eh, toftaleeg yan na ci nekk ci wirde yu warak ak zikar yu warut wa ak tudd yi mbiru tariqaam ak ñi ko topp wa fadli wirdihi ak ngëneel gi yàlla def ci wirde wa ma adda allahu li taalihi ak li yàlla préparé ñiy jàng wirde wi wa sifatil muridi ak taalibe tijaan bi ni war a mel wa xaalihi ak mbiram wa ma yaqtaw an ustaadihi ak lu koy génnee ci tariqa bi ba mu dagg ci wa kayfiyati cheikhi ak ab sëriñ alladi bi nga xam ne yatbaahu yattabiu daf koy topp nan la war a mel fi saayiri aqwaali ci mbooleem mi waxam waa faali ak jëfam wa kayfiyati samaaci wa ma yatbauhu fi saa'iri laya laya ak naka la dégg wa ma yatba ak la koy topp fi saa'iri layaalihi ci mbooleem guddi mi waa yaamihi ak i bëccëgam aha samaaw wa adciyatin ak i ñaan chatta yu taqali ko ajraha yooyu dawal na ko laahu yàlla ala lisaani ci lamiñu Cheikh Tidiane bu tedd wa kama hiya aadatuhu lkarima ni nga xam ne looloy aaday yàlla ju baax jooju mu aadawu ala qulubi ahli irfaanihi di sotti mbóoti ak ñaan yi ci xoli ñooñ xamam muy nitu yàlla yi fusul bunt bi ñetti faslong ci albaabul xaamisu buntu juróomeel bi fii zikri ajwibatihi ci tudd ak ay tontoom fii nag dëgg-dëgg fii la téere bi ngay gisee kane Cheikh Tidiane wi ba ajwibatihi ci tudd ay tontooy Cheikh Tidiane tontu yi muy tontu alal ci laaj yiñ koy laaj tamu aju ci ay aaya alquraan yi yooyu ko jóg alquraan wala xadis ak ko jóg yonentu sallallahu alayhi wa sallam wa fi dikri rasailihi ak tudd ay leetaram mu daan bind wa kalaami ak waxam wa ishaaraati ak i junjëm yu kawe ya wa ma ak lu dégg naa ko man sidi harazim min faydi ulumihi ci bëbbi xam-xamam yi wa taqriratihi ak ay saxalam wa fihi nekk na ci ay fusulun arbaa ñeenti faslu buntu juróomeel bi moom ñeenti faslu la def buntu ya ko jiitu bu ci nekk ñetti faslu buntu bu mujj bi nag mu jagleel ko fi jumlatin ci mbooloo min karamaati ci karama Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wa baadi ma jara ak lenn li daw min tasrifaati ci soppatam karama yi Cheikh Tidiane amee woon jëlee ko ci boromam ak soppatu gimu mu soppatu gi daan soppatu ndax borom jamono ko neexe rek soppatu ci jamono wa mattafaqa li baadi ashaabihi maahu min mukashafaati ak li nga xam ne dëppoo na lenn ci ay àndandoom gis ko ci ay mukashafatum mukashafa mooy eh, wa waxee waxee loo xam ne lu nëbbu la nga feeñal ko mën ngaa ñëw am lu ne ci sa nga di ko nëbbu mu feeñalal la wala am lu war a xew mu wan la ko waaw yàlla mayoon na ko Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ngay toog muy wax say mbir nga naan waa kii de man lay waxal waaw wala nga ñëw mu wax la taag nangam ak nangam ah yooyu ci eh, karamam yi gën a tuuti la bokk radiallahu taala an mhm. mu ne wa xaatimatan ak xa mu conclusion it boo xam ne awrattuha maa ngi ko rotal axiral abwaabi mu jug bunt yo li takkuuna misk xitaamihi ngir mu nekk misk xitaamam xitaamuhu miskun nga alquran di wax ca suratu tatfifi bi dalika fa li tanaafasil mutanafisun wa yakmulu fiha ma yustamlahu min alkalaami ala karamatihi nee fa matee loo xam ne danañ ko neexlu ni ñuy neexloo ñamu xorom ci waxin ala karamatihi ci karamami wa yadharu almuhibbu bi maramihi ki ko sopp dana fa fekk lam bëgg la muy sàkku ci Cheikh Tidiane ba jot ca wa yushfa galilu lawaatihi wa garamihi bu ko defee moom euh, maram maram maru cofeelam dana fa dana fa saafara woo aha radiallahu taala anhu ak feebaru euh, cofeelam dana fa saafara woo nee na ma tuddee ko nag jawahiral maani wa bulugal amani fi faydi abil abbas tijani radiallahu taala anhu kon nag ñu taxaw foofu ñaan li borom téere bi ñaan ne wa ilallahi listinaadu wa alayhi li'timaadu léppit maa ngi ciy wéedu ci yàlla di sukkandiku ci moom waminul fatxi wal imdaadu ci moom la ubbe gi ak tëbb di jóge wa tawfiq wal isaadu dëppale gi ak texel gi wawal karimul jawaadu mooy ku tabe ku waaw généreux wa minhu wa bihi subhaanahu alquwatu wal iaanatu ci moom rek la kàttan ak ndimbal amee wa alayhi taawiluhu litmaami wa takmilu ci moom lay sukkandiku it ba mën a mottali filit maam yi ba mën a mottali wa takmili ak mottali ba mën a mettal ak mottali téere bi kon nag ñun ñuy sukkandiku ci moom ba mën a def liñ bëgg a def wala quwata illa bihi wala rukuna illa ala janabihi wa huwa alwaliyu walkafil wa huwa xasbi wa nicma alwakil wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sallama amin